l'opportunité d'une entrevue avec Ousmane Sonko ngay waxtaan ak moom sur les perspectives euh, yan faute nga koy pointer du doigt ne moom la def que waru ko woon def. Ousmane Sonko daal ba taxawoon ak moom tey ma ko naan bàyyi sa grève de la faim bi. muy première chose jeex na léegi moom il est est il est. et pour l'avenir il est assez grand il a suivi des épreuves je pense que bon il faut qu'il en les les leçons boo jàllee ci ay épreuves en tant que homme. politique mais da ngay tirer toutes les leçons. mais mais mais mais dama koy gisee euh, daal tey dama ko daal Ousmane Ousmane Sonko ngir yàlla bàyyil sa grève de la fin loolu laa koy wax ngir yàlla bàyyil grève de la fin bi.